xam nga président Jammeh dafa am interaction ak people bi ñun ñu buggal ko seen boppa parce que boo déggee ne ñu ngi laa saanil karta mooy nga liggéeyal nit ñi yow da nga liggéeyal réew mi ba pare taxaw nag si coono doom aadama yi xoola weeri koor gi ñu jógee nii Malick euh, euh, kilo yàppa one hundred and seventy five dalasis ñu dugg si wéri koor gi 170 dollars ci dugg si wéri koor gi rek mu yoko président jamme ñëw ne déedéet mu génnee ndawal gi diko jaay 50 dalasis pour kilo Yo 170 dalasis bobu nonu ya ngay dem si ndawali président jamme bi nga am si 3 kilo. 3 kilos Lolo dinañ dem be adina tukki duñ musa am ko ñu ko defal. ba pare dinaa ko gërëm si Bakary Diaté mii nga xam ne jël na ko barka démbo Ndiaye mu def ko député gouverneur. Bakso waaw Bakso non man dama kontaan suma xol dafa seeda parce que ak euh, secrétaire général bi Malick Jones dërëm ak dërëm a mun a dem Malick Jones ku bañ démba tey du la mun a bugga kula la bañ démba wax si yow lu ñaaw lu démba amul lu mu bàyyiwut si yow tey bu la buggee rek pexeem moo nanguwut kon bañ bañ du mun a bugga ma la dugga ci biir mbooloo mhm. bu xam ne borom domb tànk yaa ngi fa borom kaaraange yaa ngi fa maa ngi wax affaire yi policier soldaar yi sécurité ngi tight nga dugga ci géew wax dafa neewut mhm. mun nga wax mu neex ñene yi mun nga wax mu am ñoo xam ne. neex mu na am ñoo xam ne ñu ngee ñaan ne war naa am opportunité bi ndax ba am waaye amuñ ko parce que yàlla jaglalul leen ko ñu nga nga wax sax ñu mer yomboon ak yow pour dugg ci biir mbooloo bu président nekk nga sànni fa nga gaaral fa ay kàddu. waaw xam nga adama boo gis am na lu dënka am na lu la yàlla jox tey mun ngaa taxaw fii si baye bi àddina bi yëpp toog nga yuuxu walla nga wax kenn du la déglu keneen mun naa jóg taxaw fii mu yuuxu mu wax rek ñëpp yuuxu ànd ak moom loolu doom aadama boo gis am na lu ko yàlla dinka am na lu ko yàlla jox yaa ngi dégg ah, malik dama daan dafa am lu ma liggéey GPTC school transport ma jifa lu baax si xale yi yaa ngi dégg yaaya jaame ñëw jël réew mi 94 mu tax tey ba ma am respect boobu si nit ñi am kaddu googu si Gambia bi ba fu ma taxaw su ma yuuxoo ak lu ma wax rek Gambien bi dañ ko accept hola last election bi lima my moy bom last card arrest bi <laughs> Gambia yeb jël The next election bu sobe yalla bobu dafa nek red card hmm. Boom, hmm. red card la neka. waxkat yëpp yeb ñu tëj seen gémmiñ yi soo ma gene fi bom last card arrest Malik. Mm-hmm. gambien ri duñ orkat de dedet te gambien ri duñ musa baye président jamme ganaaw parce que président jamme daf da demal demal farafeña boo demee farafeña doo ko xaamee nga jógee farafeña dem be si be sénégal si booda bi nga jógee farafeña dem be bamba tenda ili tenda be jaara sooma yëpp daf na ko xaywee tey ñu ngi nii mu ngi war a jël liif <laughs> damut UK de wala mu dem Amérique mu ngi nii mu ngaa béy Gambia dinañ mu a am ku noonu man nag Malick Jones man dama toppa Yaaya Jammeh ànd ak moom fañ jóge sori na maa moom xaalis boolewuñu place boolewuñu dama ko bugga ci suma xol bi te yalla tax te mbugel bi ko bugga duma ko nu ba benn doom bu fekke na nak lolu moy fat suma bakkan bi nañ ñu jël ci ko ci li nga xamne mom ngay def di gërem président bi di neme ko ci askan wi li nga xamne mom la président di def ak géwélam nek militant bu mag Nyakut president tegoon um, naa yo loxo am na ko gis am na ko gisut man wóor na ma parce que xam naa président ku ko support rek mo support la wax dëgg way ci lim la jàppale mhm. ndax yo tamit jël nga loolu mhm. ne ah president day mom kaadoom moy li ci askan wi ak ci ndawu bi mhm mu ngi oté né na xalé yi wécc seen jikko na gambel ci wécc seen jikko benn mooy dem ci kom kom yow bi boo xam mu ngi tegu ci ñeneen ñoo xam dañu bi benen bi mooy nañ ni ñu dunda ci li nga xam mom la ñoo nañ waat ci suuf si béy mu nekk lu am solo muy béy bi muy napa bi muy yeneen façon ngi liggéey yoo xam ne daal doomi banjub la wala doomi gambe bi su ko defee dina ci njëriñoo ndax yow am nga organisation bu ndaw boo xam ne yaa ngi teete ne leen ma ne li la président wax jaar leen ci acca leen ñu ci jaar maanaam sa own organisation waaw waaw jërëjëf Malick euh, euh, tey bu nit di ut xaalis yow wala nit di ut place yow utal nit président Jammeh dafa tax tey mu am nit soo demee Wili Ngara man leen jàpp bàyyi boo demee kunku jànkeeteya man leen jàpp baay boo ñëwee néema kunku ndaw yi man leen jàpp baay ba bu yàggut ni about two weeks back maa fa jël benn kikof si benn tournament bu fa amoon ma gërëm minister of youth because jox na ma support jox na ma bool pour ma présent ko maa fa am amoon na gaay benn taana biir bu neex si baye bi lañ ko def ndaw yi bari fa lool mu fees del si baye bi ma ñëw dugga toog waaye euh, bi ma joxe speech li nga wax nii exactly loolu laa wax ndaw yi te fu occasion buñ ma invite tur Yaaya Jammeh laa faa dem li réew mi laaj li ndaw yi war def ak li président bugga loolu laa leen a wax parce que tey dinga am mbooloo waaye mbooloo bi nga am gannaaw yàlla ak yonente ba boo gisee nga am ko yaaya jaamee tax kon mbooloo boobu noonu tey dama ne soo buggee jàppale buur da nga isil nit waaye doo ko daaxal nit parce que tey cër bi ma am si society bi si local community bi kana yalla ak yonenté ba président jamme motax ma am ko yaa ngi dégg parce que man ko gërem diko di trop si moto bi ma parce que man ko dawal ku nekan ko gis xam nañ ne ki dal nit yaa la haritam la géwélam la fine lu nekk dama ko dee dégg dama ko dee dama ci contane ba na respect boobu noonu dama ko am trop si community bi si local community bi because luñ am euh, léegi nii am na benn tournament buy amaat. Mm-hmm. maa ngi call minister of youth sax di ko ko explainal di na ki kii Oswada mu ne ma bul ragal bul tiit dinañ la jox support <laughs> parce que yaakaar dafa dis, <laughs> ko local community bi gayang la yakar si tournament bi ñoo def ne da nga jël kick community bi committee bi sax ci mbopa ñew nañ ne dañ ma bëgg gis pour waxtaan ak man digala awma way yalla amna lo amna ndawal luddut ko bo ah, te yakar dafa diis ñi ñi bu ñëwé la waxtaan ak ñom si jekkata ak tranga dimbalé len jappalé len ba nga xam ne parce que ñooñu ñëpp tey su ma fi waxoon ne damaa def a political rally Malick Jones soo fa tegee sa tànka man suma political rally duma ko dee def si street